bi depuis lors est-ce que jéem nga bind jéem nga contacter Barthélémy Diaz maire de Dakar. dugg naa fépp foofu fépp fu ñu ma yebal foo xalaat dem naa fa Barthélémy Diaz dem naa fa moo tax après mooy sàkku ku ma mun booleeg moom rek mu recevoir ma parce que instant yi ni dama toll foo xamante ni mënuma fi toog nekk di wax wala di expliquer parce que li may dund la. moo tax instant yi damay sàkku ku ci mën jàpp rek na ci jàpp bàyyi ma kenn. kii di Cheikh Ba loo gisee taxawaayam. Cheikh Ba gisuma ko et pourtant moom période émi période élection municipale yi ay éléments moom ci boppam xam na wa Cheikh Ba xëy na tey la neex nii walla dara ndogal ñëw ku ci nekk tournée mel ni ko xamul booy bi Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Mhm. heure bu doon soxla élément waa APR. Euh, bu ñu doon soxla élément pour booy ñëw wuy si leen si man mii lañuy jaar moom ci boppam moom tax moo taxoon soit waa mairie bi jàppal ma rànkiñ mm. ñenn éléments yi waaw kon tey nag ndogal dafa ma dal ñu wan ma ginnaaw maanaam jàngal na damay jàngal nag ci àdduna. mais Cheikh Ba est-ce que actuellement yëg na li nga xam ne moo la dal. Cheikh Ba yëg na ko ñi ànd ak moom yëg nañ ko Cheikh Ba yëg na ko bu yàgg mais instant bii nii nii nii dama jàpp ni Bamba Fall àndal rek moo tax. parce que ku ànd ak moom moom booy wax waxu Alioune Ndoye sax da leen di déranger et pourtant su yàlla dogaloon ma xëy léegi léegi léegi xëy suba génn àdduna ñu nga fay njëkk gis ñu ne dañuy ñëw jaaxal wala dañuy ñëw naan dañuy ñaanal maanaam loolu du dëgg ji dëgg ji mooy man ndaw laa même bu fekkee man ak ñoom sax seekuñu jàmm maanaam sa moromu jullit nekkee si ay jafe-jafe da nga war a am nooy taxawee mais du ay wax ak tontu ay defante boobu ba ñoom li ngi def moom ma toog da leen seetaan waaw jamono jamono maanaam feebar bee ko laaj. Mm-hmm. moo tax du si wax kenn dara. Mm-hmm. mais xam naa ne man maa ngi góorgóorlu boobu ba léegi di jàppale sama bopp dama gëm ni. Mm-hmm. damay góorgóorloo nii maa ngi saako autorités yi ñëw mais même bu fekkee kenn ñëwu sax man dinaa ko jéem a jaayante ba lu ci mën a am incha allahu rabbi man ma xam ne loolu la yàlla dogal. yaa ngi doon liggéeyee fële ca RTS est-ce que ñoom jot nga wax ak ñoom pour kilifa yi fa nekk mën laa jàppale. waaw RTS premier ministre jot si li ma dégg waaw premier ministre Ousmane Sonko waaw maa ngi saaku bu dee jot na si comme ni ñu ko waxee maa ngi koy saaku ñu jàppale ma te yàlla rek a tax parce instant bii nii bal bi mu may sonal te mooy sama yaram waaw. bal bi mu ngi koy sonal te mi ngi ci yaramam. bal Ousseynou li aussi doon naa déggante ak moom moom it doon na def visite biir maintenant yàlla def ñu tase si koñ bi. Mhm. jot nañu waxtaan man ak moom aussi moom tamit maa ngi koy woo PDG Demba Dioum mm-hmm. aussi maa ngi koy woo bàyyi ma kenn mm-hmm. nguuda mm-hmm. maanaam autorités yi nekk Médina yëpp maa ngi leen di woo boobu ba léegi nag maa ngi woote gisuma kenn. mais est-ce que yow tu trouves pas que war nga am koo di ànd comme sa système bi nga ànd àndal tey nga jéem a sol sa daal dem yóbbu say document parce que actuellement dëkk bi ñu tool dañu tool ci dëkku preuve yóbbu nga bàyyi woote bi nga jël sa sol sa daal dem ba ci ñoom wan leen toog ak ñoom ñu recevoir la nga waxtaan ak ñoom nga wax leen difficulté yi nga xam ne yaa ngi koy dund actuellement ak bal bi nga xam ne mi ngi sa yaram pendant sept mois. dossier yaa ngi nii lii déposé naa ko fépp. bi ma feebaree ak léegi lii yëpp dossier yaa ngi nii lii rek dossier scanner bi rek mi ngi nii. Mm-hmm. facture bi pour wan ni maanaam nekkuñu ci ay kii lii yëpp dossier yi la. Mm-hmm. boo ci dindi. Aha. dossier yaa ngi nii lii yëpp ay ordonnance la yëpp ay ordonnance la ak ay analyse la hmm. mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ñu ngi seen émission ganu kër gi tey dañu dalal kii di Aliou Ndoye ndaw bu nekk ni Médina dañ ko tiire bal il y mois de cela te bal bi mu ngi dund ak moom ba tey mu ñëwoon rek ñu bëggoon autorités yi ak borom doole yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi bu ñu dee ñu ñuy seetaan ñu jàppale ko te yàlla tax ndax di lu la ñoppati sax dafa metti rawatina bal pistolet mu nekk sa sa mu nekk ci yow mu nekk lu doy waar Aliou mhm. dama lay bal bi nekk ci yow amul yeneen feebar yoo xam ne déclenché na ko sa yaram. depuis mu nekk sama sama yaram moom des fois damay jékki saa sama benn côté yaram bi fi bal bi nekk.